booba ngay xam ne mbër ñëw na te mbër mi ñëw na kon président Bara dama bëgg nga jóg taxaw ñu fas yéene installé la officiellement ci kanamu assemblée générale membre yi nga xam ne teew nañu parce que am na juróom ñett fukki dëkk ak juróom ñeent 89 vingt villages village bu nekk am na ñeenti délégué yu fa jóge looloo tax mbir mi mel nii waaye lancement ba ma nga ca kanam looloo gis mooy ñi ngeen gis ñu takk badge yi dëkk bu ne dañu organiser wu benn mag benn jigéen benn ndaw ñoo fa jóge ak ki nga xamante ni si ñooy responsable notable yi fa nekk ñu invité leen ñoom ñoo ñëw teew fii ñu fas yéene installé président Bara président mën nga jóg taxaw donc damay demander assemblée bi pardon s'il vous plaît est-ce que d'accord ngène président Bara nek président mouvement Bolo Sokali gox bi dama bëgg ñu ko minutes deux minutes deux minutes na ñëpp jóg taxaw na ñëpp jóg taxaw ku ci d'accord jógal taxaw donc président Bara bis assemblée générale nga xam ne ñu ngi ci 500 délégués ñëw nañu fal la tey bis ni ki tey le 24 août 2019 à 15 heures nga nekk président mouvement booloo soqali gox bi fa ñu jëm la ñu sumb la ñu bëgg la ñuy doxal président Bara dana def discours da ko dégg Hmm, doyen eh, Mamadou gis ngeen ko nii mu toog force tranquille da ngeen ko dégg man tamit pël bu dégg wolof ni ma département bi tudde man tamit danaa ñëwaat danaa ñambaasaat kon sans plus tarder ñu ngi jox vraiment président Bara mu ñëw def discours waaye bala muy def discours dama bëgg ñu introduire ko dafa am sa nga ñëw présenter dugal président Bara mu def discoursam ñu continuer liggéey bi